Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Free yep, nous sommes Sénégal si un ami naturel naturelle. yaram oh. oh dina yok sen katan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo accident pour fait bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak si emballage civilisé Tour. ak jus vito da am choix te ñu déféré ko ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison Le point de l'actu, chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver sur les antennes de 5 TV. Assalamu alaikum, téléspectateurs yi ñu leen nuyu di leen ziar rafetlu ànd bi ànd ñun saa su nekk ak suñu programme dalatina jàmm nag seen émission le point de l'actu comme saa su nekk ñu koy amalee téléspectateurs yi euh, seen euh, li nga xam ne mooy télévision Sénégal 5 TV C'est su ko actualité bi daal di laajee ànd see koo xam ne itam kenn dootu table naatable fii Sénégal chers téléspectateurs waaye itam daal di koy ràññit lool si domaine bi nga xam ne itam si la daal di nekk alors

gëj gise bàyyi nga daal di nuyu téléspectateurs yi na xam ne itam ñoo daal jàkkaarloo travers la 5 TV Sénégal. waaw ah, Fallou jërëjëf euh, Amar kontaan ñëwaat si télé bi nga xamante ne mooy 5 TV di nuyu équipe bi ma fekk yëpp. di leen sant di leen gërëm di nuyu aussi bépp téléspectateur bi nga xamante ne mi ngi suivre 5 euh, TV vraiment di leen jaajëfal si liggéey bu rafet bi nga xamante ne yéen ngi koy def euh, di véhiculer l' information juste et donc di. defee émission yu am solo li nga xamantene day day amal ndirign askan wi donc vraiment ñu lay ñu ngi leen di remercier donc di rafetlu aussi ñëwaat ci euh ci émission bi nga xamantene moy le point de l'acte alors ñu ñoo remercier si di dañu daal fas yéene daal ànd ak yow euh, sàll que li nga xamne ne modi di tolluwaayu réew mi ak li nga xamne ne modi actualité ne suñu gëna a waxon waxoon naa ko sànq nag euh, saa su ko yëf yi laaj lay daal dalal da di waxtaan ak yow si yooyu dañu xam ne moo ponk alors euh ça fait maintenant li nga xam ne moo peut-être 11 ans après les événements de 2011 daal di célébrer justement naka li nga xam nekk moo di après li nga xam nekk moo 11 ans gissone li nga xam nekk moo di euh, M23 li nga xam tam itam len dal di jugee woon pour dal di fi jëlee ki nga xam nekk moo Maître Abdoulaye Wade pour daal di xeex li nga xam nekk moo di sa troisième candidature euh, donc tay di ben ko rappel bu ndaw jëm si événement yu mel lan len solo lu mën wa tay di ni buñu nii tay le 23 juin donc ñuy magalat 12 euh, ans yi nga xamantene dundoon nañ ko si mooy événement euh, juin 2011 bi nga xamante ne euh, président Ablaye Wade dafa bëggoon a jalgati constitution bi ak ticket présidentiel boo xamante ne. Hmm. pour que doomam aussi mën mën ko mën ko wundu ak tamit bëggoon a jalgati constitution bi ba nga xamante ne sénégalais yi acteurs de la société bi politiciens yi mouvement yëpp jug taxaw def ay manifestation di xeex pour lan la question du troisième mandat pour lan ticket présidentiel bi président Ablaye Wade bëggoon ñu ñëwaat

briguer un troisième mandat bëgg nañ jagati constitution bi mais ñun leçon bu ñuy tiré rek 23 juin 2011 dafa nekkoon lu symbolique mooy lan mouvement de la société civile les partis politiques les syndicats sénégalais de tout bord nous ñoo jug taxaw temb ne ne Ablaye Wade do jalgati constitution bi Ablaye Wade ticket présidentiel bi nga bëgg duñ la ko may Ablaye Wade constitution bi nga bëgg bi nga bëgg a euh, saafaaxaane du gars duñ la ko may té président Macky Sall bi nga xamanté tay mom lañ yalla jiital mu nek président du Sénégal depuis deux mandats mom nekkoon devant ci combat bi tay ku wax donc ñi nga xamante ñoy le mouvement M23 du seulement yaa Y'en a marre tey ku wax président Macky Sall ku wax ay ñom Tanor Dieng ñoom Moustapha Niasse et tant d'autres yo xamante ñi ngi won ci front M23 pour mener ce combat là pour ne président Ablaye euh, Ablaye Wade tay do fi am euh, euh, euh troisième mandat mm. ticket euh, ticket présidentiel boobu nga bëgg duñ la ko may kon dama japp tay recommencement lañ nekkaat éternel recommencement man maanaam en 12 ans acquis démocratique ñu en 12 ans rupture bi en 12 ans révolution bi en 12 ans tay dañu wat ñu à zéro recommencer à zéro tay ji ni contexte bi ñu toll nii président Macky Sall leeralul askan bi ta mom wax deug yalla mo waroon njëkk a askan bi parce que mom dund 23 23 23 juin. 23 juin dund ko xam si xamna na si lu bëree bëree bëri. mais si peut-être fu bëggu ñu ñaw exactement muy li nga xam moy mooy ci xex bi.

malgré cela dépose li nga xam nekk moo di sa candidature. Hmm. ñu gis wax nga le même scénario ma ni ku ñu daal di répété wu si nguur gi le président Macky alors donc concrètement est-ce que li faire xeex porte na ses fruits wala kon est-ce que le Sénégal a pu peut-être jàng si histoire bi nga xam ne peut-être romoon nañ ko. waaw li ñu doon xeex man dama jàpp ni euh, amul résultat parce que résultat conjoncturel la amul maa résultat conjoncturel mooy lan xeex nañ ko Ablaye Wade donc quitté na euh, euh, birigé na troisième mandat dans l'élection, élection ñu gagné ko maanaam xeex bi dafa waroon nekk loo xam te bi ñu ko est moom ay mort am am ay blessé Sénégal nekkoon dans le chaos mom ben résultat boo xamante ne tey quelqu'un ku ñëw dina sàmm ak ak yelleefu constitution bi ne respecter les droits humains respecter les droits civiques respecter les droits citoyens de ce pays mais malheureusement li ñu gis mooy 12 ans bi ñuy xeexee loolu yëpp tey jii le même scénario moo taxaw maanaam tey dafa un échec hmm. échec bi lan xeex nañ ben affaire bo xamante dañu jàppoon ni kat. Mm. que ki ñëwaat ak ku mënti doon su ñëwaaté dina sam suñu constitution. alors ñu gis ni Macky Sall bokkoon na sañ fa nekkoon exactement. tay euh, li fi am. Mm-hmm. ñoo ko gisandoo alors mais est-ce que donc après F23 place à F24 est-ce que F24 dal na xel peut-être pour mëna a contraindre ki na xam ne mu di président Macky Sall parce que Macky Sall néna ah ñooñu euh, troisième mandat c'est-à-dire euh, dem na ba reconnaissance yu na xamni tam bo ne ko am sax amuñu ko. Mhm. effectivement. wa continuité parce que M23 m 24 même posture la continuité parce que m 24 lén rek mo libération de de détenus politiques mais M24 M23 et m 24 c'est xolé si logique bi ñu le continuité le combat M23 bi ñu en 2011 pour lan la question du troisième mandat man dama ni. Euh, loolu day wane ni nous sommes dans hmm. un recul démocratique tey bu hmm. nekkee après 12 ans li ñu doon xeex la ñuy hmm. après 12 ans xala yi nga xamante tay ñi ngi woon sur le terrain wala ñi nga xamante ne ñoom dégg ci 23 juin Tay ñoom ñoo nek tay sur le terrain di mëna le combat kon ça veut dire que am na recul démocratique bi nga xamante suñu suñu réew am na ma japp nag réew warul doxee noonu suñu constitution bi mom moy suñu vérité établi suñu constitution mom moy suñu religion dañ ko war a président bu mënti ñëw mën ko samba nga xamante tay événement yi du am scénario bi du am mais dama japp ni F24 si posture la nek moy lan teel a artu parce que boo xoolee. ñoom Aliou mais déjà naka ngeen si ngeen ngeen gisee posture. Mhm. peut-être sa ñoom frère ñom Aliou ñi ngi fa entre autres entre autres mais est-ce que tey leur posture peut-être est convaincante. wa xam nga tey Sénégalais amna ñu bari peut-être que. dinañ japp ni que F24 nu mu formé wo Y'en a ngi si les anciens M23 ñu ngi si xam nga la société civile mu ngi si les partis politiques mu ngi peut-être que ñenn dinañ japp ni amna Sénégalais am doute. par rapport ak fonctionnement F24 am na sénégalais mais man jàpp naani ni que ñoom fi ñu jugee c'est c'est l'heure maanaam parce que président bi dañu war a pousser président Macky Sall mu leeral sa position. parce que dëggul waxagul nii oui nii non sur la cité bien vrai que nag ñu ngi ay algorithme ay cax ay ki, mais waxagul sur la question tranché xam nga Abdoulaye Wade buñ tolo côté bi tranché na wax carrément que il va briguer un troisième troisième troisième candidature ba dem déposer conseil conseil conseil conseil va valider ko mais essayé guñu foofu si Macky Sall moo tax F24 di mener le combat pour dire non à la troisième candidature mais aussi libération des détenus alors dinañu exactement par rapport à à cette euh, supposée troisième candidature mais dinañu exactement si li nga xam nak moo di actualité réew mi après après F24 beaucoup aussi euh, lo xamni tam ben benn la mm. F24 dal di porté li nga xam modi combat bi muy li nga xamne ko modi bulkis bi nga xamni tam mm. ñu ngi koy gis si kër ki nga xam Ousmane Sonko exactement alors euh, pendant une vingtaine de jours ñu gis ni keur Ousmane Sonko est barricadé mm. et bloqué par les forces de l'ordre exactement alors tout d'abord nakana dal daal di jàngatee euh, sur la forme voilà ñu exactement sur le fond à travers la sortie du ministère de l'Intérieur jëm barricade bi nga xam ne itam ñu ngi amal ci buntu Ousmane Sonko jàpp ni carrément que yi nga dëkk dafa Sénégal dafa am justice. Hmm. dëkk su amul justice rek kenn ku nekk da ngay def lu la neex. Hmm. dama jàpp ni événement yi fi am si mois de juin le premier ak le deux mooy événement tragique ay nit dee si hmm. ay nit gaañu si. mu nekk événement yu méttee méttee méttee méttee boobu ba léegi mënu guñoo passé état boobu noonu ñu gisaat ni carrément que les forces de l'ordre ñu ngi waat barricadé donc sur instruction du ministre de l'intérieur ñu ngi barricadé ki nga xamante ne mooy kër Ousmane Sonko depuis vingtaine de jours comme ni nga waxee. ma jàpp ni carrément que li ñuy Eh, dama japp ni dañ ko war li ñi lepp lu ñu xamne dañ koy def dañ ko war tax ci yoon parce que tay ji gis nga le pôle des avocats donc japp nga teguñu ko ci yoon teguñu ko ci yoon parce que même les avocats genn nañ

le ministre de l'intérieur a déjà joxe comme explication dans na xel euh, y a wala comme sax situation qui mi permet leen pour ñu daal barricade Ousmane Sonko. man dama jàpp ministre de l'intérieur man suis nit sax koo xam dañ koy jox quoi parce que tey jii boo seetloo ay discours. il est euh, euh, la personne la plus informée. effectivement il est la personne la plus informée mais boo xoolee parfois ce sont des déclarations très partisanes maanaam déclaration nga xam qui kii le parce que tey boo taxawee wax ni. mais jàppoon mi ngi logique non non nekkul xam aussi ñi logique. waa xam nga tey man dama jàpp ni barricade de kër Ousmane Sonko du logique xam du logique parce que amul benn trouble à l'ordre public bu fu mën a am tey jii nii je pense que li ñu def mooy trouble à l'ordre public parce que tey imaginel bu Ousmane Sonko waxoon militants yi partisans yi kaay ñëw leen. Hmm. mais foofu trouble à l'ordre public foofu lay amee. Hmm. mais nii nii dara xewul comprendre nga jugé nañ ko jugé nañ ko condamné nañ ko ñu xëy barricade barricade de këram. mais tey jii nii loolu noonu tey je pense que mën na indi ay tension mën na indiwaat ay problème te ministre de euh, am na décision yoo xamante ne wala am na yu muy jël yoo xamante ne donc méngoolowul ak li nga xamante ne moom la loi bi wax wala moom la suñu suñu suñu suñu justice doxee kon nag posture partisane wala posture nekkul ministre de l' intérieur APR c' est le ministre de l' intérieur de tous les Sénégalais kon dama jàpp ni lépp lu xam ne da koy jël na ko teg si ay sart leer nga xam ne ëllëg du mu indi benn tension mais tey bu fekkee da nga nekk ministre de l'Intérieur boo xam ne da xupp yow sax yaay créer des tensions politiques loolu tey mën na indil Sénégal ay ay jiixi jaaxa yoo xam te ne tey kenn xamatul euh, fan la xam ne moo di Ousmane Sonko mais est-ce que lever ces barrières dina nekk doon solution wala comme sax dina doon loo xam dina mën a nekk gis nga yeewu askan bi foofu laa bëggoon taxaw sax gis nga yoobu nekk si musikeer sax yow askan bi mënuñu ko génne waxuma la ak dem dina ay barricade xam nga wax yomb na. xam nga tey jii <laughs> non pour wax la dëgg rek yow askan wi yow bu nekkoon si benn moustiquaire bu ñu enfermé mënuñu ko génne xam nga tey euh, Ousmane Sonko. il est Ousmane Sonko il est seul euh. hmm. il est seul et dans ce tey dama jàpp ni gis nga yeewu askan wi mo dama japp ni sax dañuy gëna duggal Ousmane président Ousmane Sonko parce que mënu mo comprendre contexte buñ tollu ni tebeski lañ tollu yow la mo tax nga am tout ce temps nga baye nga nga baye ba le 25 xam nga lolu duggal nit ki la xam nga lolu jaxase xalu nit ñi la parce que SB ni Sénégal yëpp utum xar lañ mais japp ni artu dañuy artu entre temps fi ak ñukay baye parce que tebeski pour tous aussi xam nga gis nga tebeski gis nga ya, yow askan bi hmm. dañuy def ben communication mo xam tane gëna enfoncer le président Ousmane Sonko fi lañ taxawone carrément ko Ousmane Sonko kenn duko japp kenn duko tejj Ousmane Sonko kenn du ko jugé Ousmane Sonko kenn du ko lii yow ak mi ñaata combien de fois la ñuy def ay conférence de presse toog si quatre murs wax xam nga pa mais yooyu ñuy def di jéem a xam nga yooyu day gën a enfoncer Ousmane Sonko mais ñoom dama jàpp ni. sénégalais ins bu ñu toll nii hmm. sénégalais contexte bu ñu toll nii xam nga ko man xam naa ni hmm. tabaski lañ gën a tal boo leen woowoon rassemblement sax ñuy gën du bëri parce que ins bi nii ñëpp xam nañ ni si kon réew bi nu mun méttee gars yëpp ñu ngi lijjanti xar ñuy pomiteer ñuy soble situation bi lañ toll yow nga ne da ngay bàyyi ba le 25 à jours wala à 4 jours mais est-ce que tamit exiger la libération Ousmane Sonko. xam nga tay booy exiger la libération Ousmane Sonko amul nga largement la temps bi ko jappé depuis 22 jours ñu ko barricade këram. ana ban acte ban acte nga def F24 moo defoon ben acte ne carrément que day def ben manifestation pour la lever le blocus pour la libération des détenus politiques est-ce que dégg nga yow askan à travers ces salles conférence tay siège fee siège fee toog si ay xam nga lolu libérewul Ousmane Sonko toog ay bureau donc wala ay président tok di waxtan di mm. réunion lolu libérewul président Ousmane Sonko il faut mener des actes forts pour que ñu lever les barrières mais du ay communiquer, du taxaw di wax je pense que man yeewu askan bi euh, Ousmane Sonko président Sonko instant bi c'est la bataille communicationnelle. mais effectivement la ñaari camp yi di nekk di mën mhm. donc c'est euh, euh, c'est très normal yow est-ce une barricade qui ki nga xam ne mu Ousmane Sonko le 25. xam nga Pastef su ne dañuy dem barricade le 25. Man nañ man mën ko gëm. wala F24 wala yeneen mouvement mais man eu askan bi. jusqu'à preuve du contraire peut-être jusqu'à preuve du contraire. mais man non eu askan bi dañuy lakkante seen biir. gëm bëggante wuñu parce parce que preuve mais xoolal dialogue baa ngi nii dialogue baa ngi nii y a des leaders de Yewwi Askan Wi yoo xam ne dem nañ pour sauver seen bopp maanaam tey dañ fa nekk dañ fa nekk mais kenn ku nekk da ngay tibb yóbbu sa kër hmm. Yewwi Askan Wi kenn ku nekk sa bopp ngay lijjanti Yewwi Askan Wi laa lay wax nii nii seen bopp moo leen tax a jóg mais pas le peuple sénégalais xam nga tey président Ousmane Sonko il se retrouve seul dans ce contexte rek. donc dafa wét si si lu mel. il euh, yaa ngi xaar euh, départ am. mais normalement président Ousmane Sonko dafa war a gën Yewwi Askan Wi parce que Yewwi Askan Wi amul lu mu koy apporter amul lu mu koy apporter tey président tey Yewwi Askan Wi suñu amee benn hégémonie bi tey Yewwi Askan Wi suñu amee benn doole benn taxawaay partout dans le ginaaw yàlla ni ñëpp xam nañ ne le président Ousmane Sonko am na lu mu si joué tey ji am na leader yu nekk yow askan yu bëri yoo xam te ne sénégalais yi seen crédibilité dañ koy mettre en jeu hmm. sénégalais yi seen taxawaay dañ koy mettre en jeu sénégalais yi xam nañ ni carrément est ce que ñooñu ils sont crédibles pour porter le Sénégal wala pour changer li ñu bëgg li ñuy xeex ak révolution bi ñu bëgg changement bi ñu bëgg mais am na si ay leader yow askan yoo xamante ne mais takk nañ si luubal alalu askan bi am na si leader leader yoo xam ne ñu ngi yeew askan bi seetuñu si si si ni ñu jàggatee ni ñu yoree réew mi bëri na si mais tey sénégalais yi à travers président Ousmane Sonko et tant d' autres ne ay personne de valeur lañ ñu ànd ak ñoom si coalition Yewwi Askan mais dama jàpp ni Ousmane Sonko mu duggee si problème bii nii lu ko gën a sax mooy Yewwi Askan parce parce que Ousmane Sonko xam nga si woote ñëpp génn. xam nga tey la mooy xoolal élection locale ak législative boo amee benn lecture politique nga xam ne carrément Ousmane Sonko ñu bëri dañ ko use parce que mais dans ce combat il se trouve seul avec la société civile mooy f mais sans ñoom xam nga ni. mais yéen askan nag mais yéen askan bi ñoom Maimouna Bousso euh, ñoom euh, peut-être hmm. bëri nañu euh, ñoom Omar Youm. waaw mais xam nga loolu lu néew la autant que pour moi. Mhm. ñiy taxaw pour daal di koy jàppale. mais xam nga loolu lu néew la ci askan man dama jàpp ni. donc yow ñan ñan nga bëgg a wax. mooy waa taxaw Sénégal nga bëgg a wax xam nga kon mooy xam nga xam nga xam nga yow askan bi configuration yow askan bi xam nga ni ni ñu au début ni ñu soudé woon ci les élections locales yi ak élection législative bi ak combat président ak Ousmane Sonko bu muy njëkk a commencé combat ni ñu ci amee woon engouement taxawaay di mobiliser sax seeni seeni acteurs ak seeni sympathisants boobu effectivement si moo boole woon mais ñoom après seen communication yaa ngi dégg ñu ne dañuy ànd ba échéance wax nañ ko seen communication maintes fois. Ah, wax nañu carrément su mais au début. ndax c'est le des ah ambitions là-bas. waaw xam nga choc des ambitions am na mais man

Euh, li nga dafa am Sénégal depuis événement mars ba légui dafa metti da ngay gis des nervis hmm. yu attaqué des personnes xam nga nit ñi nit ñi gis ko xam nga bu sax ko nga mais nañ ko la presse en ligne da koy génne même bu ko yeneen presse yi censuré presse en ligne wala gis ko dafa portable def direct ñu gis ko hmm. repatrier des nervis hmm. des milices armées yor des armes di tirer sur le peuple bi nga xam ay xeer yor wala ñoo taxaw mais lool soko wax dëgg yàlla nga gis ay ay ay ay rapport médico médical génn ni mm-hmm. kii bal moo ko rey au moment où la police ou bien euh, ministre de l'intérieur génn ni carrément que bal rey ko euh, rapport médical génn ne bal moo ko rey mais yëpp ñu gis ko

ñu leen di gis au vu et aussi de l'opinion nationale internationale man dama jàpp ni avocat sénégalais bu valeur am bu crédible war foo mënti far war na porter ce combat pour ce ko mu am ay ay ay ay leeral. je pense que Juan euh, kii euh, euh, Juan Branco Juan Branco li mu def au au de l'humanité ñëpp ko si war a sargal parce que bëgg nañ vérité bi leer soit bu fekkee c'est dans l'opposition dans l'opposition la milice yi bokk mais ñu leeral ko Sénégal bu fekkee c'est dans le régime actuel de de président Macky Sall fa la milice yi nekk fa la ñuy kii mais tam ñu leeral ko pour nit ñi mën ko xam mais aussi ñu situer la responsabilité parce que dafa metti ñoo xamante ne tey euh, si ay manifestations yoo xamante ne ñi génn yoruñu arme yoruñu dara tey beneen camp bi yor ay di tirer di rey nit ñi gis leen pare ñu noppi si parce que loolu waruñu ko waruñu ko bàyyi mu impuni CPI war na si dox ay jéego pour que ñu leeral lii Juan Branco nag am na ñu jàpp ni populisme ñooy defoo lay man nekk ma si yooyu noonu buy de populisme yooyu mais man dama jàpp ni un sénégalais un avocat sénégalais sérieux waroon na mener ce combat avant moom bu koy mener pense que loolu mu loolu donc parce que li ñu gis dafa dafa dafa dafa daw yaram ak li nga xam ne mais quand même euh, euh, Sidi des fois doo toog ne ne le pourquoi Juan

pour mën a corser le dossier. xam ne il n'a jamais fréquenté effectivement mais xam nga tey jii man peut-être xaw lan moo ko yan ambition la am ak yan idée la am derrière. Hmm. mais dama jàpp ni que man li ma gis sa gis naa quelqu'un de très engagé hmm. koo xamante ne. bëgg na li nga xamante ne injustice la am hmm. fi ñu mën ko poursuivre man dama jàpp ni gis nga lii bu ñu ko poursuivre ëllëg beneen président bu ñëwee mën na ko defaat ëllëg keneen ak keneen mën na am sa milice ëllëg keneen ak keneen mën am say nit yu nga xamante ne yor ay arme di rey te du nag lii justice Sénégal tu vois comme ça, moi je a mais justice Sénégal lu ko parce que ministre ay ministres yu taxaw quatre ministres def conférence de presse mënuñoo répondre les questions les questions véritables euh, li nga gens qui moo xew mënu la jox des réponses ku ku si wax def erreur. Mm. erreurs, ñoom tey ñoo waroon censé leeral li nga xamante ne parce qu'ils ont toutes les informations ils ont toutes les données ni xawaan def ba am tous les données koo xam ne du sénégalais un Français récupère toutes ces informations-là, plus de 4500 éléments, 112 personnes interpellées. le dossier déposé ko Sénégal def ambition derrière mais est-ce que est que réellement. Mm-hmm. Juan chiffres mm-hmm. chiffres mm-hmm. quelques explications est-ce que tu as développé exactement. effectivement je suis préparé. mais dama le même Juan même si wax combat les Sénégalais la justice sénégalaise parce que tay gis nañ ni carrément des FDS. mais mais c'est un drame non seetal na dara mais xam nga. Ismaël Madior Fall gis na euh, éclaircissement yi nga xam ni tam joxe na ko allant dans sens. mais est ce que éclaircissement yi non Sénégal bu xalaat dina ko dina ko déglu wala Sénégal buy xalat gis li am ci affaire bi dina ko gëm. donc ça à des contre-vérités. mais ce sont des contre-vérités yoo xam te ne gis nañ ko parce que tay mëno taxaw xam nga lu gën grave mooy un ministre de l'intérieur taxaw ni nit nit. l'hôpital hôpital bi euh, def étude balistique bi wax ni carrément kii bal moko ray rey ñu génn yow nga def sa discours ne carrément kii bal ray ko xam maintes fois cas am na fi maintes fois ñu taxaw des nervis armés yor ay pick-up yoo xam ne ce sont des sont des voitures de l'administration ñëpp xam ko au vie aussi de tout le monde en collaboration avec des des FDS côte à côte nit ñi gis ko léegi ñoom ñu génn def le contrat xam nga tey euh, je pense que bu fekkoon sax image amul wala vidéo amul mm. wala loolu peut-être bu ñu waxee loolu Sénégalais dinañ tâtonner wala mm. Sénégal dinañ ko gëm mais lu ne fàng nit ñi gis ko mm c'est pas la première fois mon fils, il y a des milices il y a des nervis armés au côté du régime en place ou bien au côté des forces de l'ordre pour réprimer les manifestants. Je ne sais pas, manifester man ma c'est ça. alors alors mhm. parce que on regarde, moom moo euh, comment réussir peut-être mhm. euh, un coup d'État. Mhm. et qu'aujourd'hui un journal l'a repris jëm si ki nga xam ne moo mhm. alors ñu si ëpp na japp ne ni doon na tenté benn mais dafa mujjee échec et que euh, Dakar Times sax je fais référence à ce journal que ni ñëwaat na exactement sax si comment les renseignements régionaux ont pu euh, peut-être démanteler cette bande de Juan. Mhm. alors nous mhm. aussi euh, suñ koy faut di ko daal dégg lu su ni Sénégal ñu waxtaan ay coup d'état un avocat français bi ñëw comme Cheikh Yérim Seck ni ko féré donc mi ngi semé benn années ben peur ben tremblement jëm si li nga xam ne ay dirigeants yi. Mhm. est-ce que loolu tamit si du si wara a marqué ay réserve wa man xam nga xawaan bi ñun man comme ni ko gars yi découvrir rek la ko découvrir parce que prof xamuñu xamaguñ ko donc creuser guñu au fond pour xam nit la personne. mais ñun manam mais parce que Sénégal mom dafa gaaw apprécier déjà on l'apprécie. xam nga man maanaam tay am nga sur le fond man du ma la forme manam mom lan la. mais li nga xam ne moom lay def ni ni ni hmm. un avocat sénégalais sérieux waroon na ko def maanaam tey jii pour pour que lii lii bañ a impuni pour que li nga xamante ne am na ñu mën ko leeral mais nag comme que mais man je ne suis pas d'accord pour que ñuy ay avocat wala qui que ce di ñëw Sénégal pour manipuler wala pour jéem a def say coup d'état wala non loolu moom amul benn sénégalais bu si bu bu si d'accord bu fekkee Juan Branco

un avocat sénégalais sérieux avant avocat sénégalais sax la justice sénégalais mënoon na ko leeral de façon très éclairée wax situation bi léegi nag avocat sénégalais amul seen avocat bu crédible hmm. taxaw def li mu def mais moom il a fait des investigations commencé def donc am ay image yu mu dajale des tout ça commencé def rapport di wax pour déposer hmm. à la CPI hmm. mais loolu c'est à magnifier ndax lan ne serait ñi dee man xam naa ne ñi maanaam maanaam daal si dal na seen xel waaw xam nga station ku si dee wala ku si hmm. gaañ xam nga hmm. tu seras un grand perdant hmm. du mujj fenn parce que la justice sénégalaise bu dee da xaar justice sénégalaise topp dossier bi du ko parce que ana ana ñu si événement de mars yi boobu léegi ana ñu fàttali nañ leen sax à ñëw jox sa fayu benn nampaay pare nañ si kon ku dee si manifestation yi wala kuñ si rey yaa perte wala ku si bres yaa perte parce que tey jii nii bul xalaat

de deux sénégalais gis nañ li mais bu presse amul woon moo la moo tax après ñu ne dañuy dañuy arrêté internet bi. Hmm. la moo tax parce que xam nga problème bi mooy gis nga dëgg yàlla bu bëggee feeñal dëgg nit nit mënu ko nëbb. parce que li xew ci mois de juin bi. Hmm. dafa leral lu bëree bëree bëri bëri. Hmm. amana nak peut-être que ñu top ko wala ñako top topp mais dafa woné carrément comment est la justice Sénégal. Hmm. comment fonctionne euh, notre notre politique comment fonctionne APR ak régime comment fonctionne le régime actuel nan la ñuy doomu adama, nan la jappé jàppee manifestation gis nga ni ay nit Pape Abdoulaye Touré ni ko def ku doon dem kërëm warata di dem kërëm ñu japp ko. ay nerf bi japp ko dóor ko ba dam ko moom gis ñu ngi ni Hmm. image yu choquant hmm. combien de personnes lañ jël jàpp leen dóor leen te ay nervi la hmm. mais ñooñu est-ce que xam nga te nervi yooyu nit ñi xam nañ leen mais tey doo mës gis mu am benn poursuite tey booy kon benn siidi la wala mu nekk keneen ak keneen automatiquement fekk ko këram jël si ko kon mais day am poursuite am suivi mais dama jàpp ni ku mu am ndey ku mu am ndey dañ ko war dañ ko war a bàyyi Sénégal ñoom xam na lu tax ñu tiit parce que tey jii li li ne moo am si euh, waaw mais ñoom yor na xam nga ñu dem découvrir ko ñako découvrir mais même les sénégalais am nañ ay preuves ñu yor yo xam hmm. day sa des images qui parlent euh, France 24 def na benn reportage di woné carrément que des FDS euh, collaborer avec des nervis mais fan lañ mës a gis justice Sénégal wala ban régime depuis le Sénégal créé Sénégal ay FDS yu gis ay nervi yor ay armes ñu war leen a dem jàpp ñu bàyyi leen ñuy collaborer ensemble mais loolu rek loolu ay indicateur la yoo ne ni carrément que lu ñu leen mën di tuumal mën na dëgg nag mais yow da nga si am benn benn benn lecture wax ah, ah, responsabilité la responsabilité du régime est entièrement si li xew parce que tey ji nii ay ay gendarme rey ñu ay policier rey ñu ay milice ñu yor des armes di rey Nous gis nañ ko xam tamit ko wax Sénégal dafa am justice bu indépendante bu Sénégal dafa avocat crédible ils vont porter ce combat fi lañ porter pour que découvrir qui étaient les milices ñan ñoo leen jël auto yi ñu yan yan ban auto yan fa la auto yi fait kan mo pour sen mais ni ñu défé investigation ba xam Sidi fa la dëkk fa la fa lay nekk kan lay waxal ah investigation pour xam milice numéro 9 bobu fan la fan kan moo kan moo leen engagé mais loolu bu ñu ko defee gendarmerie ak police xarañte bi am en terme d'investigation. Antoine Diome nee na euh, y avait des forces occultes qui ont pu infiltrer li nga xam ne moo di yooyu de manifestation. xam nga gars yi chaque jour ak terme bu ñu indi force occulte wala ay yoo xamante ne te ñoom les forces occultes. mais Cheikh Limsek, Seck neen li ñu gis doy parce que dañoo bëggoon saboot sax. Ah, euh, réseau de distribution de lobby, entre autres yoo xam ne itam. gis nañ ko si yooyu de manifestation mais mais qu'ils sortent ses preuves. nañ ko génnee bu dee am na <laughs> xam nga problème mooy wax yomb nañ ko génnee comme ni Sénégalais génnee des milices armées ànd ak ay FDS comme ni Sénégalais génnee des personnes des manifestants torturés par par des milices comme ni Sénégalais génnee ñoo xamante ne leen a jàpp jébbal leen police comme ni sénégalais génne ay images yi nga xamante ne ay police ak ay gendarmerie collaborer avec des FDS pour ñuy ñu tremblement bi am si seen côté tiit bi tiit am am mm. seen côté parce que lan ils sont responsables si mm. li xew donc nag il faut que nañu mën a identifier les responsables pour ëllëg parce que bu ñu identifier les responsables rek Sénégal non waxuma la sax kaaw mais lii day gën a gën a ëllëg su amaatee bu mën na peuple bi mën na révolté wu wala tey kenn maanaam tey ni arme bi nekkee sur le marché kenn ku nekk mën na uti arme kenn ku nekk daal dama comme que les nervis sont armés mais damay armé wu comment ni ñu nervi bi ñu jàppoon dur ko moom dee à Rufisque mais loolu de une haine viscérale envers la population. mais dañu naan ku nekk ak sa nerf quand bu nekk am na am na am na say comme pouvoir loolu aussi ban réponse que c'est. waaw xam nga man euh, les hommes politiques hommes politiques yëpp am ay nerf hommes politiques yëpp man, tey nerf yi maanaam tey am sa benn ay bras droit yo xamante hmm. tay yow ñoo lay. xeexal ñooy chargé combat mais dama japp nak gis nga nit mais jappone loolu mo si dangereux nak mais c'est très dangereux. len diw. ciblé hmm. len diw ciblé len diw mo gën hmm. grave parce que tay mi ñi nek ci langue politique yëpp amul ku si amul ay gros bras yoo xamante ne sooy génn ñoo lay topp say gros bras yoo xam ne ñooy ànd ak yow mais li nga xamante ne lañ gis si événement yi dafa gën a garaaw parce que ñoo xamante ne véhiculé armé ñu dugg si ay koñ ñu dugg di jàpp ay nit di leen dóor ba pare yóbbu leen police wala yor arme ànd ak police wala ànd ak gendarmerie yor arme ba pare ñu gis ko ta après mu jul fenn mais hmm. lool c'est grave hmm. dama ni carrément ko suñu justice dafa coucher wala suñu justice bi dafa dafa fété bo ta lool no bu ngey gis nak vraiment donc day day day tay xel ci li ni surtout la sortie de ces quatre ministres Antoine Diom Félix Diom euh ak euh, ki nga xam ne Amadou Ba. Euh, mhm. euh, Abdou Abdou mhm. mhm. le ministre du commerce. entre autres entre autres Abdou Karim Fofana. alors ces sorties ces quatre sages ni nga xam ne que peut-être ni fantastique. ni sage exactement est-ce que une sortie ak déclaration vous a satisfait. xam nga man wax dëgg yàlla man ma gisee seen déclaration sax dama man ban Sénégal lañ nekk. Hmm. ñu ngi nekkoon ci crise hmm. nekkoon ci ci jamono bu méttee métti au moins d'abord une communication boo xam te ne.

yow li nga li nga ñëw li nga ñëw exposé ko askanu Sénégal amul benn répondant répondant mooy lan ñii li ñu wax lépp sont des xam nga loolu aussi en tant que un ministre de la République yow même boo faree ak si sa foo mënti far mais bo gisee deug waxal deug ci gis nañ événement yi nu mu mais il faut que nak ñom même sax mo waxul deug ci sax mais qu'on puisse tenir un message bo xamné un message galvanisateur pour mën pacifier l'espace politique parce que fiñ ñu ay tension mi ngi am ci côté bu nek mais ñëwul un discours mais Abdou Karim Fofana bo déggee ni waxé discours mom non c'est un discours bo xamné c'est pas un discours de ministre c'est pas un discours responsable kon dama japp ni sen sorte yoy ñu sorti des fois dañuy rek parti beeg parti dañ koy jaawale moo tax sa pap moo tax mais sen sorte subitement bobu ñu génn est-ce que gis interroger les Sénégalais. mais France 24 dafa jël vidéo bi décortiqué ko. waaw mais mais euh, eh, wax leen mais mais effectivement parce nga la leen seen sortie boobu ñuy def xam nga tamit même France 24 ko def si la manipulation yooyu ñu njëkkoon def di di manipuler di wax loo xam ne ce sont des mais dama jàpp nag loolu nag c'est ah c'est ah c'est dangereux dans pays gis nga nit ki euh, nga nekk ministre ak loo mënti nekk waxal li nga xamante ne moo xam ne après

loo gaaw si appel à l'insurrection. xam nga waaw mais xam nga waaw tey. <laughs> faral xam nga mooy <laughs> euh. fii moom Sénégal moom lépp loo lépp ñu ñu ngi si risque ñu ngi si danger. sagam bàyyiwuñu kenn ah, tout le monde est en ñu ne te wax ñu ne appel à l'insurrection mais man dama ne. gis nga Ousmane Sonko. ok euh, procès ñoom daan nañ ko mais lu tax ba léegi euh, xam nga ministre bi kon wax na leen carrément à tout moment ba mu njëkk a wax ne ne ministre de la justice ko jëli. Hmm. à tout moment ñu taxawaat ñu ne dañuy xaar. dañuy xaar dañuy dañuy xaar. mais yow Ousmane Sonko xam nga gars yi suñ koy ma xamal leen de jëli Ousmane Sonko mu ngi seen stratégie. tëj Ousmane Sonko mu seen stratégie mën nañu sax bàyyi tabaski bi nit ñëpp dem ñu jëli ko. loolu yëpp c'est possible ñoom mën nañ ko jëli. à tout moment ñi sax ñu ngi laaj ma xam Ousmane Sonko à tout moment xam nga Ousmane Sonko nii nii à tout moment mën nañu ko coppet jël yóbbu te Sénégal parce que Sénégal état ñu ngi si tabaski ñu ngi si yeneen yeneen mais dama jàpp ni hmm. gis nga c' est un li ma yàggoon wax rek c' est un faux dossier un parce que dossier boo xam te ne li ñu doon wax euh, au début viol menace pas euh, il par rapport ak fait de viol waaw man Ismaïla Madior Fall nit koo xam ne dama koy déglu man man ñii dootuma leen déglu parce ñoo xamante ne seen wax tey ak waxu dëng boo ko méngalee nga xam ne carrément que ñii man ñooñu wax deug yalla duma leen may nopp quoi parce que seen wax man taguma ko fenn fii quoi parce que dañoo am posture politique boo dafa feeñ parce que tey jii nii am dossier bo xamantene te ñaata nit ñoo ci dé au début lu ñu wax vol viol menace de mort viol menace de mort kasse lu ñu wax muso deug ñuy wax corruption de la jeunesse ñaata nit ñoo ci dé ñaata nit ñoo ci ñoo ci am ay problème ñu xey xey daan Ousmane Sonko 2 ans ferme né délit délit de de euh, corruption de jeunesse ba ni ni jëlee guñ ko kërëm parce que ñu ngi sóoraale le peuple mais dama jàpp ni nag barricade bi ci barricade këram ak Ousmane Sonko ni ñu ko bàyyee isolé noonu jàppal ni moom prison ñoo yem ah. moo prison mooy te il est impératif que. est-ce que est di euh, li nga xam ne mu di dund penam. waaw loolu lay wax mais Ousmane Sonko. barricade bi ñu ko barricade këram noonu jàppal ni foofu prison am la. prison am la mënuñ ko sax bàyyi foofu noonu bari bi mais nag. waaw mais ba heure bu leen neex mais ba heure bu leen neex mais nag gis nga la Sénégalais yi man dama jàpp ni. Hmm. Sénégalais yi gëm justice. Sénégalais yi gëm des libertés des citoyens Sénégalais yi xamoon ni c'est un dossier vide faux. ñoom ñoo war a mobiliser wu taxaw def un blocus bañ déglu yeewu askan wi mais ñoom ñu taxaw temm dem lever le blocus. quoi que quoi que euh, quel je pense que loolu mooy la solution mais pas ay yeewu askan bi nekk si ay bureau ay conférence de presse dañuy lever le boulot le 25 tout mm. loolu du ay wax mm. il faut que les sénégalais aient pris de justice et de valeur xam ni carrément que li Ousmane Sonko du yoon mm. jaay Dole, la buñ xatal la bañ mu nekk candidat la bañ mu bañ euh, dog ay ay ay yitteem parce que Ousmane Sonko fu mu génne ñëpp topp ko. Mm. tey loolu lañ koy te ñu ngi dem si ay échange yoo xam ne bientôt d'ici 7 mois 8 mois ñu dem si ay eh, eh, eh, élection ñoom nag ñu ngi teg seen stratégie pour éliminer président Ousmane Sonko te éliminer président Ousmane Sonko mooy lan barricade këram comme que yóbbu ko ñu ngi barricade këram du génn du pousse du passe kenn du ko seet kenn du fa dem loolu nag passif. la société civile les gens de valeur xam ne carrément que li ñuy def Ousmane Sonko jaay dooleel ñoo a taxaw def benn boloko si dem ko. pas lolu moy la seule solution sino man songo falañ koy meñ ko fa baye faté ko wala ñu baye ba si di si si du doon lo xamni dina yom re wa mais xam nga aussi les répercussions yi nga xamni tam wonna sero mëna am wa xam nga tay li eh, gis nga fiñ tollu ni gis nga am ak ñak la quoi parce que dama japp ni gis nga rew dafa toll fo xamni dafa dafa ba faw ok tan nguur gi nga xamantene dafay nek hmm. régime bi fi nek es bi ni ñom c'est intérêt bop mo leen taxaju mo lan nek au pouvoir buñ ko tal ay nit Ousmane Sonko mën na baye Khalifa Sall bokk. Hmm. mën na baye Karim Wade bokk Ousmane hmm. Sonko do bokk. Hmm. Ousmane Sonko do génn Ousmane Sonko dem fenn mais lolou fan la am Sénégal yi ñoo war a taxaw xeex. soo sax dialogue bobu noonu Karim Wade ak Khalifa Sall mujj neen daal di bokk si yoy da dina xamné xam ne que moo euh, élection. Euh, révisé wat neen dina xamné xam ne que moo article 27 ak 28 même Karim Wade sax li bëgg moy daal di xoolaat li nga xam ne que moo di procès mais quand même ñu bari nee neen c'était juste ah. peut être discours ni rek peut être pour mu gën a seetal ci fi mais euh, war a wax ji wax ji wax ji moy mudine dal di bokk alors Euh, Sonko euh, qui est disqualifié pour le moment parce que Sonko batay mi ngi en suspense est-ce que nekkul à défaut de répondre li nga xam ne modi bobu boobu di dialogue ji jii lu ko li nga xam ne modi conséquences yi waxtaane wuñu ko fa euh, si li nga xam ne modi 13 ponk yi benn ponk bi soxlon Ousmane Sonko wuñu si entre autres entre autres est-ce que tes Ousmane Sonko tey donné que du sacrifice. Hmm. en refusant de répondre euh, dialogue ce dialogue est-ce que xam nga ni dialogue bi li ko taxoon jug écrit noir sur blanc tous les points de dialogue donnent seulement la question troisième candidat, donnent seulement seulement révision Karim Wade. Hmm. du seulement l'éligibilité de Khalifa Sall. Hmm. il y avait les questions éducatives questions environnementales questions économiques euh, la question question gaz pétrole. la pacification de l'espace politique. Hmm. maanaam amoon na ay enjeux yu bëree bëri yoo xam ne dañ ko waroon waxtaanee foofu ci dialogue national maanaam lu tax ñu tuddee ko dialogue national la moo tax man dama dama dama dama dama fier ci société civile ak Pastef bi ñoom du ñu wuyu ji dialogue boobu noonu xam nga tax parce que c'est pas un dialogue constructif c'est pas un dialogue national. Hmm. c'est pas un dialogue pour li nga xamante ne lañ bokk ñun ñëpp ñu waxtaanee ko ba solution mën si am. Hmm. mais dialogue la boo xamante ne. pour ñaari personne mooy Khalifa Sall Karim Wade. Hmm. te loolu sax dafa feeñ moo tax euh, Karim Khalifa Sall boycotté yeewu askan wi dem dem wuy ji si Jolof pour lan sauver sauver sa personne pour mu jéem a bokk rek. moom lépp na coalition la. waaw ku nekk sa parti effectivement parti invité. mu jugé nécessaire pour mu dem ñoom dañoo wax ni carrément ñoom du ñu dem wuy ji dialogue hmm. ñoom wax nañ ko bind ko clairement.

si vous êtes numéro ak Ben gan peut-être euh, après li nga xam ne tabaski tabaski ak jàmm Kavir, el Kabir euh, di leen baal àq waaye itam justement wax si yombul et que peut-être un an fils Sénégal 5 TV nous ak eu di leen di ay en tout cas si may une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits Sénégal si buy bi day wàññi tooy si yaram tayit yi oh dina Yok sen kattan boole si vitamine rek la Yi bëgg so naturel nak vito so pour fête bu monti doon te baax lol si yahu gune ak mag lépp nag si emballage yu civilisé ak vito Denye am choix te ñu defere ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito ju, fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 240 41 06 06. Vite au jus, le jus fait maison.